xaw ne mbir mi léegi nekkatul euh, le vote ak le combat des idées mhm. mais c'est la résistance mhm. ci résistance boobu mun nañ ci dem ba ci gatsa gatsa ci résistance boobu mun nañ ci dem ba identifier les responsables politiques yi nga xam ne seen xaalis yaa ngi seen biir kër dem leen jëli ko résistance lu muy signifier ci wàllu sëñ bi sama kër man fii ci ginnaaw ñu song ko taal suma oto ñu toog ci internet bi di joxe adresse u juge yi ak seen photo ak seen i doom naan songu leen leen dañ def ndànk waxuma ne attention de waxuma ne mbir mi mooy li nga doon wax sànq rek euh, Mbessane mm-hmm. ci li nga xam ne am na séparation kër yi féewaloo suñu buggee taxaw naan ñi ñoo baax ñii ñoo bon rek defaruñ ndax man samay frère samay cousin ñoo nekk ci de l'autre côté les mêmes familles mm-hmm. mais suñu bëggee ne ñi ñoo baax ñi ñoo bon rek erreur am moo tax ma saluer l'initiative du président mu métti mu métti am ñu ko bañ la loi d'amnistie am ñu ko bañ dans son propre gouvernement ay ministre jóg taxaw ne ko ñun ñii songu gendarmerie yi tàl leen menacer la vie de certains fonctionnaires tuer des gens lancer des cocktails molotov sur des bus ñuy tàkk. de la même manière des manifestants tués. moo tax ma ne la. de waaw dama bëgg dama waaw dama waaw waaw nag de waaw dégg leen nag. man ngeen man ngeen invité bàyyi ma daaneel après ma déglu leen. Mm-hmm. loolu yëpp am fi ay pick-up ay manifestants yu ñu ay nit yu ñu rey par balle. waa léegi ñaari mun a nekk ñaari mun a nekk. ñu taxaw naan ñii ñoo baax ñi ñoo bon ku nekk jàkkaarloog sa morom man de d'accord ma ne ñi taal suma kër ñoo ma gën ñoo ma gën a bëgg réew mi d'accord ma ne ñi taxawoon ne il faut attaquer les hommes politiques chez eux et brûler leur maison ñoo ma gën ci réew mi ba war ko mun a def su ngeen leen joxee raison quels que soient les moyens nous pouvons les chercher pour résister toog ci dëkk bi jàkkaarloog ñoom loolu ngeen bëgg ci Sénégal Macky ne loolu du réew nañ toog waxtaan retrouver la voie de la paix ak du discours politique apaisé ñu tourner cette page la avec responsabilité te gëm naa ne il avait raison de le faire donc sur les droits humains. te bi bu ko defee Pape Mahawa non fi nga taxaw ni dafa xam nga lu tax mu. am fii kay mën nañ fee taxaw fi nga taxaw ni xam nga lu tax mu am solo. Hmm. Pape Mahawa. moi je pense que ni li Macky lu mujjee su ko njëkkee woon wallaahi lazim du ñu yegg si. du ñu toll ci fi nga wax parce que bi ngay jiital sa wax da nga wax. résistance te résistance lu muy tekk ci baatu olof mooy fipp te ku fipp mooy kan ku ñu pousse ba ci miir bi sës ko amatul pexe mu riposte donc loolu mooy résistance ci booy comprendre parce que ñun ñëpp xam nañ ni bu fekkente ni par exemple li ngay wax ni Ousmane Sonko ak euh, waa këram nga koy askanale Sonko man c'est du début bi mu ñëwee di politique politique des idées la indi ñëpp naan waaju timit ji waaju timit ji waaju timit ji mais il a fallu nag Sonko dem ba gars ay génneel ko nag ne ko ah yow ni ngay politiquer il faut ñu attaquer la parce que gis nañ ni yaa ngi gagné du terrain léegi nag dañ lay indil doole mbaam dañ ko indilee doole mbaam nag mu ne nag damay fippu Pape Mao bi mu fippoo la preuve fippu nag moom moom moom nit moom ku nekk la nga say moyen ngay xeexee de <laughs> say moyen kese ngay xeexee xam nga man je condamne sérieusement fermement ñu naan nañ attaqué kër Pape Mao parce que boo attaqué kër kër Pape Mao euh, bu fekkente ni man maa ko digle bu fekkente ni nit laa su ma xëyee maa koy woo masawu ko parce que seq nañ ko le malheur bi ma yéene tey Pape Mao ak kum mën a doon mooy yàlla defal leen jàmb mooy lu gën a bon lu ma leen yéene yàlla defal leen jàmm donc moi je pense que ni euh, bi yooyu yëpp amee lu ko waral mooy tollatuñ fa dañoo door mu fayu quoi mais avec euh, bi Macky Sall décrisper l'espace wane ni que ni sérieusement ces derniers temps que ni sawaay fii Sénégal la nous avons hérité d'un pays boo xamante ni jàmm ak salaam ak déggoo ak waxtaan la dama koy delloo ci loolu bi mu ko delloowee bi Sonko génnee prison son discours ñëpp dañ ne non Sonko dafa dafa man dama dégg ñu ba ñëwee dafa nooyal sawaay teraanga teraanga koy fay nite nitee koy fay d'accord nit ki mënul ñëw am tamit sérieusement benn auteur bi yow nga naan noo damay taxaw na Sonko mënul génnaat taxaw naa non dañuy gàtt sa gàtt mënul ne biñ ko indilee force dafa ne ah damay riposter je ne vais pas du ma toog 17 ans ñu may rey d'accord Macky Sall yaa ma mën tu as tous les pouvoir tu as l'état tu waaye nag danga nga jóg pour rey ma anyway waaye jàppal ni rey bi nga may rey sa loxo dina takk deret di nga ma rey waaye sa loxo dina takk deret mais Cheikh Ousmane Sànq yaa ngi doon bëgg a abordé de bi bi kilifa di di jël waaw par rapport ak li Pape Mahawa indi boo xam ne ñëpp ñoo ko dundandoo xëy nañ gis gis benn niveau de violence boo xam ne c'est sans précédent bu gane si wala boo gëj na fi am parce que sa c'est sans précédent c'est un peu wala yenn méthodes yi Sénégal violence ci politique jur na fi loo xam ne nit ñi dañ koy éviter sax di wax ay nit reyante nañ ndax politique entre Lamine Gueye et Senghor loolu li mu dégâts yi mu def ci dëkk bi moo gën a garaaw sax mais waaw Mamadou Dia et puis yooyu justifié wut quoi. mais lii nag c'est waaw waaw mais lii. waaw léegi lii am na impact. impact bi mooy moo joxe benn exemple waaw waaw mm-hmm. n'a osé dire mm-hmm. je vais aller le rechercher le président de la république mm-hmm. le, le découper en morceaux comme Samuel Doe en clair le tuer loolu loolu kenn mësu ko wax les propos ont été un peu changés quand même ah, <laughs> ay Cheikh Ousmane sëñ la ah. ci ñëw xaaral danaa ñëw si. mais ko discours u Macky Sall rek bi mu naan Ablaye Wade pale lañ lay fekk foofu génneel mais comme Samuel Doe dagate la mot. non même discours bële am na <laughs> am solo mooy. seen waa ji neexul jàppale. dafa am lu am. monsieur Diouf mooy dañoo xëy bis comme ni ko kilifa waxee avant le discours violent et rigoureux mi ngi ñëw ci politique bi 2014 waaw on est d'accord indi débat technique et programmatique moom wax naa li may wax ne moom wax na bokk nañ plateau moo ko APR avait énormément de ressources pour répondre à Sonko mhm. ci débat bi mu indi. Macky waxoon na leen ko. donc moom mii dama jàppan ci bàyyi leen saagante bi ngeen dem xeexee su wax naa ko fu mu toog wax naa ko fu mu toog bi ma xeex gisuma ko sax musuñ toog bi ma xeex wax moom jàpp naa ni ci ñooñ la bokk l'APR n'a pas préféré relever défi boobu dañoo bàyyeeg débat bi des gens de seconde zone ñu alimenter benn débat de caniveau mais très triste même mooy bi waa ji indee téeréem produire teg mais mais ay junni moroom moom nekk ay cadre jàngee fi jàngee dafa nekk ci benn ñaata ndaw la Ousmane Sonko nekk biir benn bokk ak moom formation Amadou Ba mii rek kenn la ci ci ñi ko jiitu ak ñeneen ak ñeneen xoolal ñi ñu jox débat bi c'est un rebelle c'est un terroriste il a un projet djihadiste c'est le MFDC en politique mais lu nekk. force occulte. boobu force occulte ñëwagut muus bi nekk sa kër boo ko laalee mu caressé ni boo ko dàqee ba ci biir mu génne griff yi songu la à un moment donné Ousmane s'est radicalisé c'est constat on a toujours ñun ñëpp on a été présent mais Ousmane bi muy radicalisé wu bu su pacifié état bi day dal ci koom bu radicalisé état bi day dal ci koom les dés étaient déjà jetés man laa gëm man dama gëm ne bi état bi di bi machine bi di déclenché wu ku am seetlu di observateur gis nga ne machine bi déclenché wu na dafa feeñ à des yu yoo xam ni c'est ma un peu sensible d'en parler mm-hmm. mais da ngay gis ni l'appareil d'État déclenché wul et la preuve beaucoup d'opposants ci jamono jooju se suma retirés. mu wéet ci combat non parce que boobu xam na ne après day dal ci kaw. Serigne boobu ku am seetlu dama lay renvoyer ci la sortie du président à Thiès. xoolal dispositif sécuritaire bi ko toog musul am. ki ngay xam ni état bi am na tànk yu mu jël am na fu mu jël. mais loolu c'est un peu sensible duñ ci sori. mais boobu xam nga ne machine bi déclenché wu na et la preuve yeewi li day du bëri dañoo so boobu dañ détaché wu ci Ousmane xam nañ ni kii waaje ci kaw la ci kawam la jëm su su indee jàmm ci kawam la jëm bu radicale ci kawam la jëm. d'accord tànn na position. Mhm. li am am na. d'accord li ma gëm mooy état xajul ci nit. à forte raison état jug di dal ci nit. une grande partie de la population jug taxaw def barrière mu ñu jural dégâts yi ñu jur mais ñun dañu am chance mais réew mi état bi da doon effondré parce que état ak askan bu daje loolu catastrophe la moo ñu dal romb nañ loolu xam nga fan la affaire war a nekk jamono ji comment faire ba plus jamais ça. waay man lii mooy sama discours. am na ba pare ah c'est regrettable am na mun nañ fi nekk di waxtaan fii bu suba kii na yow yaay coupable kii na maay coupable kii na mooy. tout à fait mhm. mais na ñu fexe ba plus jamais ça. tout à fait mooy plus jamais des combats politiques. mooy bu mu amati. ñu toxol ko ci beneen niveau. Mhm. plus jamais nos institutions d'État ñu di ko utiliser pour des combats politiques. Mhm. plus jamais du ñu persécuter benn opposant ba mu soxla tenir un discours aussi radical. ci ñenn ñi ñeneen jàpp ne c'est pas radical. mooy plus jamais ça boobu man loolu laa d'accord ñu xool nan lañ koy jëmbatee. d'accord moo tax ma gëm ne xaaral rek s'il te moo tax ma gëm ne dañ soxla ay réforme hmm. le pays a besoin d'être réformé. Hmm. laa gëm. Hmm. parce dama gëm ne façon bi Sénégal mënu ci continuer. nit boo génnee ci benn cycle. jur ci ay dégâts dégâts yi am na bu dégâts amuloon amnistie du am. amnistie mooy nañ fàtte bu ñu waree fàtte dafa am lu ñuy war a fàtte dafa am lu fa nekk. n'est-ce pas mais plus jamais nañu fexe ba loolu noonu dootul amati léegi nag loolu nan lañ ci àggee loolu lañ sama discours mhm. d'accord loolu laa gëm mhm. mais li mu ba Pape Mahawa xam nga ça c'est ça c'est responsable oui non allez-y allez-y bu ma jaxasee Ousmane. non non non jaxasewul ma. non non dama de même que yow tamit Pape Mawo bi ma daan gis ak Pape Mawo bi ma gis nii tamit. waaw bokkul sérieusement non non non c'est parce que non quand je dis il est il est c'est quelqu'un de de responsable. le discours est partisan comme il comme bi mu ko comme tamit le discours a toujours été partisan mais aujourd'hui le discours est partisan mais quand même. responsable ak ay regret sax ak ay. regret non. mooy plus jamais ça dund nañ fi traversé nañ fi loo xamante ni kenn bëggu ko woon. d'accord moom man. waaw ci lan gis nga sunu démocratie. dégg naa ñu naan le pouvoir du président de la république est excessif il faut le c'est de l'aventure man gëwuma loolu. comment dégg naa ñu naan l'institution judiciaire lu lu ne lañ ko fi yegg ne dañ koy utiliser dans tous les sens les dernières semaines à venir on prouvé totalement le contraire. Mm-hmm. nañu respecter suñu bopp man pour man li gën lépp mu ngi Sénégal les meilleurs juges sont au Sénégal. Mmh. les meilleurs chefs religieux sont au Sénégal. les mmh. meilleurs politiques sont au Sénégal moo tax ñoom citoyens yi ñu am ñoom Léopold Senghor nga dendalee nekk ñoom Mamadou jaa ñoom Lamine Guèye ñoom saxanta Anta ay ndaanaan lañ ñoo tax ñun ñu doon citoyens yi ñu doon li fi xew su doon rek persécution opposition su doon rek utilisation des